alors bonjour sama gars yi voilà daleen ak jàmm seen seen like mobile votre chaîne de technologique euh, voilà tey ñu indi leen beneen astuce bu am important euh, bu jëm si wàllum téléphone ñu bay leen ginnaaw publicité bi ñu dellusiwaat. like mobile votre chaîne de technologie n'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo alors bonjour sama gars yi voilà dal leen ak jàmm seen seen like mobile seen bi leen di jox ay astuces yu am solo jëm si wàllum téléphone ak technologie ñu leen ngi defal en wolof voilà ñu leen ñaan ginnaaw loolu bul fàtte bës si bouton abonné bi par vidéo bi partagé ko voilà ngir ñu gën a mën yokk liggéey bi euh, di leen indil ay astuces euh, yu si wàllum téléphone ak technologie boo xoolee depuis deux jours mu ngi ni na dugal vidéo parce que c'est parce que dañoo nekkoon si day day am si nekkoon rek moo tax voilà incha allah feeg euh, incha allah den commencé waat def vidéo yi comme deux jours wala plus de trois jours voilà tey ñu indi leen benn astuce bu am important bu jëm si wàllu téléphone euh, astuce boo xam ne boo ko yoree dina la permettre nga yor nga nga yor benn benn application bi nga yor ko deux fois maam nga yor ko ñaari yoon si même téléphone bi ngay yor bi bi ngay utiliser voilà exemple comme bu dee WhatsApp simple bii ni yéen a gis WhatsApp simple bi euh, boo ko xasee télécharge benn boo ko xasee télécharge moom. Euh, mënoo koo yor ñaari yoon mu nekk si benn téléphone euh, benn yoon lan lan la mën a permettre lan la mën a permettre pour nga yor ko exemple boo yoroon WhatsApp simple bi maanaam nga yor deux pièces léegi nga bëgg a tijji ñaari yëpp nga bëgg see tijji nga bëgg see tijji WhatsApp te yow WhatsApp bi moo la intéressé ndax WhatsApp bi moom nga gën a miin léegi nga tijji ko si orange bi léegi mënoo tijji mënoo ko tijji si orange bi léegi nga tourné waat di ko si tigo bi léegi loolu dañ koo interdit loolu maanaam mënta nekk sax si yoon voilà léegi tey dinaa leen woon nag ngay def ba nga xam ne whatsapp bi boo ko yoree di da nga ko yor ñaari yoon mu doon ñaari yoon si sa maam mu doon fois mu doon deux fois si téléphone exemple nga xam ne léegi da mën a tijji fii nii da nga mën a tijji fii whatsapp tijji fële waat tëj si tëj si beneen puce whatsapp te si benn whatsapp simple bi rek lay doon voilà léegi euh, si fi vidéo bi dinaa leen naka ngay def ba télécharger boobule application voilà léegi euh, léegi dañuy xool application bi ñu ñu ñu dugg si voilà léegi ñu xool application bi voilà léegi application bi mu ngi nii léegi dañ siy dugg voilà léegi ñu cliquer application bi voilà léegi application bi voilà léegi publicité la parce que ñoom dañu faral def ay dugal ay publicité voilà léegi ñu ignorer application bi voilà léegi application bi boos diggee duggee nii la lay indil léegi euh, comme ñun maam dañoo bëgg dañoo yor WhatsApp euh, simple bi ñu bëgg WhatsApp simple bi mu doon ñaari yoon si suñu téléphone exemple nga xam ne dinañ mën a tijji fee suñu piis bee beneen piis bi ñu tijjiwaat fële maam si lépp mu doon si benn si benn si benn WhatsApp si benn téléphone exemple nga xam ne nga xam ne boo boo bu doon fii nii si nga tijji piis orange bi léegi boo bu bu dee fii dafay connecté ba pare léegi nga bëgg a dugaat connecté si Tigo bi léegi da ngay dugg exemple si application bi voilà nga dugaat voilà léegi nga dugaat si beneen whatsapp bi pour mën a connecté waat léegi bu ma moom disponible na si tous les applications yi nga xam ne da nga koo da nga ko utiliser si sa téléphone nga bëgg mu doon deux beneen application boo bëgg mu doon ñaari yoon rek si sa téléphone léegi comme que ñun fii gis nañ fi Facebook whatsapp euh, Chrome Instagram YouTube waaw whatsapp beneen whatsapp euh, maanaam whatsapp bis whatsapp euh, CB bi voilà léegi yow comme que yow maam bëggoo def whatsapp léegi bëgg nga am nga beneen am nga yeneen application wala yoo xam ne exemple yor nga yeneen application yoo xam ne euh, da nga ko yor yor maam da nga yor mu doon benn léegi nga bëgg mu doon ñaari yoon ci téléphone yaa xam loo si jublu la léegi boo xool suuf am na fu mu la bindal ajouter un application da ngay cliquer ajouter un application voilà léegi nga xam mu restar voilà automatiquement euh, mboolem application yi nga xam ne yaa ngi ko yor di ko utiliser sa téléphone rek voilà ñu décoché voilà léegi mboolem application yoo xam ne yaa ngi ko yor di ko utiliser sa téléphone rek euh, mu ngi nii voilà léegi dañuy dañuy xool léegi application yëpp moom lañ utiliser suñu téléphone voilà léegi euh, exemple yow euh, da nga bëgg a voilà léegi comme exemple voilà léegi ñu jox leen benn application ñu jox leen benn exemple benn benn exemple benn exemple voilà léegi dañuy jël exemple rek si euh, si Baie-Coeur bi léegi Baie-Coeur bi léegi dañ ko yor suñu téléphone léegi dañoo bëgg exemple la rek yaay xool application bu la neex yaay xool bu la neex rek nga def nga def nga def ko ñaar boo bëgg a def mën nga ko léegi dañuy jël Baie-Coeur bi léegi Baie-Coeur bi moom lañu bëgg a def mu doon ñaari yoon euh, si suñu téléphone léegi comme que tàppe nañ bu defee nii voilà léegi boo ko tàppee automatiquement da lay defar ajouter euh, sur la parallèle espace voilà léegi da ngay cliquer fi mu la bindal ajouter léegi ñu ajouter ko voilà automatiquement danga gis mu nekk fële fa WhatsApp a nekk voilà léegi bu ñu xoolee gis nañ fi Facebook leen gisoon WhatsApp Google Chrome Instagram et cetera euh, WhatsApp CB YouTube voilà léegi gis nañ beneen yokkuwaat si muy ban muy Messenger léegi Messenger bi léegi euh, bu ñu duggee fii nii exemple bu génn voilà léegi Messenger euh, bi léegi bu ñu génnee bu ñu génnee fii léegi den ko gis fi xoola voilà léegi may nii léegi di am nañ fii nii am nañ ko suñu téléphone bi léegi bu ñu si application bi rek. Euh, léegi voilà nañ xool ñu ignorer publicité bi voilà léegi bu ñu duggaatee si application bi dinañ ko dinañ ko gisaat maanaam dinañ ko mën a utiliser deux fois si suñu téléphone moo xam ya ya euh, moom moo xam moo xam li beneen application boo bëgg tamit boo duggaatee si ajouter ajouter application ngo xoolaat boo bëgg rek euh, ngo nga xoolaat boo bëgg da nga ko mën a def léegi ñun dañoo tàpp WhatsApp lañ choix léegi wa tëj nañ fii nii tëj nañ Euh, fii suñu whatsapp bi tëj nañu si orange ba pare léegi dañ koo bëgg a tijjiwaat si suñu tigo bi wala léegi boo duggee euh, comme que yow whatsapp nga bëgg a tijji léegi whatsapp baa ngi nii léegi da ngay dugg whatsapp da lay laaj comme ko ko comme kuy doog installé whatsapp rek laaj fi ne nii voilà nga xam recharge voilà boo duggee comme que tijji nga fële euh, si orange ba pare léegi nga bëgg a tijjiwaat fële si tigo bi. léegi boo duggee comme da lay laaj ne da comme da doog am whatsapp bu bees léegi mu lay laaj boo bësee bi mu lay laaj comme ni ngay tijjee whatsapp ba léegi nga koy léegi nga xam ne boo ko tijjee ba pare léegi fii da nga fa a di connecté euh, sa tigo bi léegi boo fi boo génnaatee tamit euh, fële da nga mën a di connecté orange bi léegi yor nga ñaari whatsapp simple si sa téléphone bi euh, si si si sa téléphone léegi da nga si sa téléphone nga mën a tijji fële orange tijji fële Tigo bi euh, voilà léegi mën nga ko def application bu la neex yaa xool boo choix rek bu la neex nga def Facebook Instagram YouTube TikTok voilà mën nga ko def yëpp voilà léegi euh, dama lay woon naka ngay def ba télécharge application bi application bi nag boo duggee amul amul ay ay compte mi ay mu daal da ngay dugg automatiquement installé ko léegi euh, dañ leen woon naka ngay def ba télécharge léegi pour nga télécharge ko c'est très simple léegi dangay ngay dugg Play Store boo duggee Play Store ñu génn ñuy pensé léegi boo duggee Play Store lan ngay def mooy dangay bind euh, para para parallèle espace parallèle es voilà parallèle espace boo bindee parallèle espace automatiquement léegi nga recharge voilà boo recharge automatiquement dina la kon comme que dañ ko téléchargé ba pare moo tax dañuy indi ouvrir mais yow boo boo duggee boo bu dee téléchargé boobu dalay laaj installé la lay laaj pour nga installé ko pour mën ko def léegi boo ko installé automatiquement bu ñëwee rek euh, voilà mën nga da ngay bës ouvrir boo bësee ouvrir mu recharge euh, voilà léegi bu recharge automatiquement euh, nga xam nga xam mu tijjeeku voilà léegi bu la indil publicité nga ignoré wala boo recharge automatiquement fii lay la indil léegi moom yenn saa yi da lay application yi da lay détecter application mais comme que yow yaa xool application bu la nga choix ko moo tax da lay indil euh, autre euh, pour nga yeneen application yoo xam ne yaa ko bëgg léegi boo cliquer ajouter voilà léegi boo cliquer ajouter voilà yeneen application application yi nga xam ne moom nga utiliser tam yëpp mu ngi boo tapé application yi nga xam ne moom ngay tapé pare léegi nga bës ajouter sur la pare voilà léegi boo de sur la parallèle voilà léegi application yëpp a ngi nii léegi boo bëgg utiliser rek léegi mu ngi nii léegi nga xam ne boo duggee fii dina fi nekk léegi boo duggaat application bi tamit dina fi boo duggee si application tamit voilà dina fi nekkaat voilà sama yi jaa ngeen jëf euh, loolu moo nekkoon vidéo bi ñoo leen ñaan bul fàtte bës si bouton abonné bi aimé vidéo bi partagé ko euh, voilà ngir ñu gën a mën yokk liggéey bi di leen indi ay astuces euh, yu am solo voilà sama gars yi jaa ngeen jëf. Like mobile votre chaîne de technologie. N'oubliez pas de vous abonner et aimer la vidéo. Merci.